dem si yàlla euh, mamles kamara nga xam ne jullit la woon citoyen sénégalais la woon boroom xam-xam la woon journaliste la woon gëstukat la woon liggéeykat la woon jàngalekat la woon loolu yëpp liñ ci mën a jàpp mooy ne ku tabee woon la gannaaw bu mu amee xam-xam ba xam boppam xam euh, li ko war euh, bëgg réewam gëm réewam waaye doon na sàmmonte ak euh, li nga xam ne ni moom mooy ràññee nit mooy tax turam des ci histoire tey Mame Less Camara gunge nañ ko ci jamono boo xam ne nii lenn ci journaliste yi ñu ngi naan waroon nañ ko rendre hommage lu ëpp li ñu def ma ni leen euh, bu fekkente ne ku ko mos a xam baa nga mos a jëflante moom lam doon seet ceew ak la nga xamoon ci moom yaa nga ca kon Mame Less dañ koy rendre euh, hommage toujours dëgg yàlla maam lees Camara c'est un journaliste émérite bu nga xamante ne ñun ñëpp ku ci nekk tous les journalistes du Sénégal ku ci nekk am nga loo seq ak moom am nga anecdote yu nga xamante ne mën nga koo raconter tey bu ñuy wax éthique ak déontologie ici au Sénégal euh, xel yëpp ci maam Less Camara lay jëm parce que tout simplement nekk na ko nga xamante ne da ko doon pratiquer da doon jàngale et daan na def ay panel également au niveau national comme au niveau di ko jàngale te yemul woon rek ci jàngale ko da ko doon dund saa su ne donc nekkoon nit ku nga xamante ne nit ku diñ la nit ku nga xamante ne ñëpp ñu ko xam témoignage yooyu la ñuy mun def ci moom man nag am na am naa chance wu en 2016 man ak moom ñun ñoo àndoon dem dem Màkka la on était ensemble à Médine à la Mecque mu nekk Mina Musdalifa ak Arafat yëpp ñun ñoo fa nekkoon mu nekk nit ku nga xamante dëgg yàlla li ma mën a wax ci moom mooy julit akkan la nga xamante au-delà du professionnel qu'il était il était un un bu nga xamante daan pratiquer religion euh, li ñuy def rek mooy ñaan yàlla yàlla xara ko àjjana euh, fee mu jëm ni gënal ko fi nga xamante ne fi la jógee. Maam dafa dafa dem waaye demul parce que turam mu ngi fi œuvre mu ngi fi héritage mu ngi fi bi muy dund journaliste la bi muy feebar journaliste la bi muy génn àdduna journaliste la promotion onzième la bokkoon sesti mais première ba actuelle promotion ñëpp ngi koy ndamoo. dund na ba génn àdduna musul yàq dara ci éthique ak déontologie li des nag mooy jotuñu ko rendre hommage de son vivant Mamadou Ibra wax na ko li des mooy ñu ko ndax moom il est immortel mais ceci ñëpp xam nañi science ak étude journaliste maam Less joxe na ko ba mu jeex waxoon na ni dee leen fréquenter bu leen di fréquenter homme politique yi dee leen leen rencontrer loolu mooy indi respect mutuel. yàqul métier bi zéro faute la def moo tax nga gis tey ñi ko gunge toutes les générations moo tax ñu bëgg la président de la république ni mu defaloon Babacar Touré fële maison de la presse mu jox ko sesti et aussi tamit jeune génération yi ñu jàng ci maam les dund na ba dee traîné wul tribunal yàqul deru kenn tooñul kenn tey li mu fi bàyyi mooy woy wu rafet loolu nag la ñu bëgg ñu des ko drapeau bu continuer di flotter sesti